maître Omar Youm amal na visite sa ci Dial Diop foofe nga xam ne fa la chef d'état-major général des armées nekk bi la visite dafa bokk ci installation ma gannaaw bañ ko taggee mu nekk jëriñ bu ñu dénk forces armées maître Omar Youm di rafet bu baax moyen yi nga xam ne état génnee na ko ngir équiper armée bu Sénégal. Euh, gis naa ci présentation bi wax dëgg yàlla lu sedd suma xol lu ma rassuré aussi gis naa effort yi nga xam ne chef de l'état moom la def pour que sunu armée nekk à niveau. maanaam sur tous les plans sur le plan effectif sur le plan des infrastructures sur le plan des équipements euh, loolu gis naa ko gis naa aussi même accompagnement social bi nga xam ne kooku c'est presque l'ADN du chef de l'État parce que moom fu mu nekk dafay bëgg ñi nga xam ne dañuy liggéey ci secteur yooyu particulièrement les armées ñu mën a nekk dans de très bonnes conditions sociales loolu aussi gis naa ko fii. maître Omar Youm di dalal xelama bu ñu sukkandikoo ci na ci fànn yëpp ngir aar Sénégal ci bépp menace. Euh, jàpp naa ne sunu armée pare na. pour menaces yi nga xam ne ñu ngi koy gis fépp euh, ci biir ak ci biti pour mën a faire face jonkonte ak moom te loolu en tant que citoyen d'abord mais en tant que ministre des forces armées dama koy rafetlu li ci des nag mooy ñun ñëpp ñu gën a góorlu euh, c'est jamais gagné d'avance parce que lii xew léegi ci àddina bi souvent lu ci bare bare bare dafay bettaate c'est des c'est des menaces indécelables donc ñun ñëpp ñu gën a veiller sur tous les aspects espace bi électronique équipement yu sophistiqué yi pour que menaces yooyu ñu mën leen a éradiquer. jëriñ bu ñu dénk forces armées profité na ci bile occasion ngir ñaanal góor ak jigéen yi nga xam ne dañoo ñàkk seen bakken ci bi ñuy defendre seen nation. ci loolu maître Oumar Youm amal na li ñuy tuddee dépôt de gerbe ca mémorial du souvenir.